waaye gis nga Diop lan la yem yow. Diop dër gi noonu. bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. acca ngeen jëf mbokki internet yi yéen ñi seen seen bi suñu xalaat TV ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen bu baax am mbégte si yéen saa su nekk leen nuyuwaat comme fi naa leen nuyu rek di di nuyu ñi nga tëdd ci lalu hôpital di leen ñaan yal na yàlla xare leen àjjana firdaws bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñi nga caabi di leen féete ginnaaw ñi ngi leen ñaan yal na yàlla teggi leen teggi leen natt bi ci jàmm ak salaam bu ñëwaat ci ci nga xam mooy seen ay mbokk tey rek comme ni ñu leen ko faral toppalee ci wàllu làmb déw nee naa maa ngi woon Malika Kër Massar wala Malika boog seeti woon bébé farfat tey nag maa ngi nii Kër Massar ñoo seeti ki nga xam ne mooy bébé Liss nee naa la combat bi Baba Milano kan xamul ban journée la ban combat la taxawal ci journée boobu noonu nekk combat bu doy waar nekk ay combat xale yoo xam ne ay xale lañ yoo xam ne dañuy dugg ci làmb mais tamit ay xale yu am mbooloo lañ xale yoo xam ne seen tur yi na foo xam ne boobu sa ñoom ñoom yëgagun ci arène bi damay bàyyi nag sama invité mu nuyu mbër nuyu naa la ziar. la demee fay naa la billaay ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi waajur oh, waa di sant képp ku may bëggee maa ngi lay sant bu baax voilà. noonu la demee dëgg la waaw mi ngi noonu mbër a ngi noonu nuyu na léegi gis nga tamit dañuy si suñuy ay question démb seetiwaat naa sa adversaire yaakaar naa seetaan nga émission bi loo ba nga seetaan émission bi loo sentir waaw maa dégg maa ngi ko mu toog di wax rek mais moom bëgg naa am xam-xam ne moom lu ma yor daanu ma dégg ma non non yow moom yow moom li mu yor ah. man daanu ma lu leer la xate fu leer nañ laa xate xanaa déggoolu ma la yéeg kii bal bi la kii moom de hmm. bugguma di wax si moom lu bëri sax hmm. ñu koy dee sax ñu koy dee ñoom du man ak ñoom man làmb ji bal yu mag yi ñoom a ngemb déglu leen ñoo ñooy bal yu ay bal bal xam nga démb dama mu ne la mu mu mu ne ne la say papa yi ngembo te moom papa yi mu wax ci lu ay ñoom des njaago ñoom Laurent njaago moom mooy woote yooyu ya man woote ma yooyu man xale bu ndaw laa topp ma si ginnaaw benn mbër voilà damaa jaante ba ba egg fi ma toll bal yu mag yi ma booy di lappi lappi di balbalu si si làmb jëf seen air a ngi nii voilà dañuy bal la déglu leen dégguma loolu nga ne nga ne nga ne booy nekk ci balbalu ci làmb ji yëpp yow yaa seen air. booy nekk si làmb ji. booy nekk si làmb ji di lappi lappi. di balbalu. seen air a ngi ku ñëpp doon xaar teew na. Hmm. voilà. daa lu ma bëgg quoi. daa am lu ma bëgg. boo bi du ma guddeel du ma taareel. ma koy yàgg dund ko waat bu may fat fat doom moom xam na. non yu ñaar xamante ngeen parce que démb ba ma ko Seydi Dieng nee na ma seen combat yàgg nañ koo dox depuis ay at xaw ma deux mille dix neuf xaw ma deux mille nangam ñu ngi koy dox ci mbapat mais mënu fexe ba taxaw. waaw waaye tey la tey la ko yàlla dogal ci arène bi. loolu lépp dëgg la. Ah. voilà looloo koy looloo koy wane tey laa ko gën a mën a noqe. nee na yàlla daw avance bi de. ban daw ma laa nduroo liy daw yow. ah moom loolu la wax. man xanaa déggoolu ma la ma tiiree dañ may rey man bal yu mag yi ñoo nekk sama ginnaaw la laay ragal. ma koy yàgg a dund fu mu waaw ay métti ñu siy nekk waaw daa am waaw naa yónni yàkkamti ma ko waaw voilà balaa ñuy balaa ñuy ñëw tey sax dañoo dañoo teel a dugg trop si saa si ci ci ci ci combat bi mais kan mooy Bébé Liss mu ngi ñu mën a boo ñu mën a wax Bébé Liss mooy kan. waaw bu ñu doon déglu di xaar. ay boobu ñii naan dafa tuuti ñii naan amul doole ñii naan def na nii def na nii. Mm. waxuma la moom ñoom mbër yu mag yi. waxal ma leen booy ndaw bi màgg na am na doole xel mi ñëw mu ngi ñëw. xanaa déggoolu ma la waxuma la. waxuma la Aliou rek de. ñu leen di dee ñoom. ñu leen di dee laa soxla. yow moom xam na lu may wax. xam na li ñu koy dee sax du mën ak ñoom. lu garaala laa la. Mhm. ama yàgg si yoon bi ko wa te dama nekk xale bu ndaw gëm làmb bugg ko ba tool nii ma tool yu mag yëpp yaakaar si man ya man di yaman man yabu ma Kër Massar bay ñëw si làmb di daw. wala yéen làmb ji ku si nax sa bébé. yaa ngi nax sa liis. bu dee moom day naxante di woote ay ndaje. yow xanaa déggoo ma la man doom man doomu Kër masaar la fii laa dëkk fii laa xam. ah fi nga dëkk fi nga dëkk waaye amoo fi dara moo tax ngay daw di làqatu ay ñoom ay dem gën dafa làqatu ak saa yooyu loolu loo ma la wax. yee ay jàmbaar ñoo fa nekk ay ndaan fa laal juddoo sax amaana. waaw bi mais man lu ma am lépp fii la waaw man booy nii ni nii booy nii ñi ngay gis ni ñoo ma def lu ma doon man si alaaji paare bi laa dëkk voilà paare mooy seeba seeba mooy paare fépp benn la bilaay na ñëpp génn nag ñu jàppale bal bi ko waa làmb ji maa ngi si woo ñëpp bàyyi ma si kenn voilà làmb ji ma leen di wax làmb balil képp kuy bal maa ngi lay woo si làmb ji voilà na bal yu mag yëpp génn voilà làmb ji làmb bali la. xam naa tey boobu émission bi tey boobu dafa ala doobee. Ah. ji damay indiwaat leneen. man ñii ñu ngi naan dafa tuuri ñii ñu naan amul doole ñii ñu ngi naan amul doole. waaw mais man xale bu ndaw laa. voilà lu ma nekk dama ko gëm. te boobi barki Seydina Muhammad du ma guddeel du ma taadeel yabuma Kër Massar bay ñëw si làmb di daw wala may ñëw si làmb di xalaat làmb di la dë bal yëppay bonde ba esaat benn bal du raam bal yëppay bonde voilà làmb laay def la dë waaw Bamba Milano ma maa ngi koy sant bu baax dafa def lu doy waar. voilà xam ne gars yi dañ koy yàgg a bëgg. yàgg a bëgg ndax nee naa la combat yi gars yi gars yi dañ koy yàgg a topp dañ koy yàgg a dañ a togg. tey la xëy na amaana moom la ko la ko yàlla tuddee. Ah, loolu nga koy wax man. waaw moom maa ngi koy sant bu man aw ma fayam. maa ngi koy sant bu baax di ko di ko delloo ndigal. mais mais lépp luy neex si làmbam. amul grand combat amul spécial amul dara lépp lu fay neex la dë man maa koy def. yéen a koy ñii daan lañ gëm. le daan naa entraînement su ma ñëwee naa na doole su ma ñëwee naa tuut su ma ñëwee naa bëri su ma naa daan voilà làmb xale wala moom moo la mag. xanaa déggoo lool moo ma la. non non ay morom ngeen ay morom ngeen. ah làmb jooju yaxu démb la ah. déet waay. boo woowu noonu dafa yàgg waaw ñun ay xale yu ndaw dañuy toog sax di ñàkk. billaay ah, ñooñ ko gëm ko waa. la na fa noo leen ci côté mobilisation ndax naa ñi ma gis ni moom pare nañ bu baax baax a baax a baax. waaw. Ah? benn message. nee na moom ñun bu ñuy ñëw du ñu jaar Malika xaw ma lan. Ah, ay ay ay question boobu la maa a ñëw sax. fii nii nu mu tëddee ay. terminus M3. waaw ne ko Alioune boobu surtout dañ koy pëndal dañ koy yoolee. Hmm. comme noonu ñoo am. foofu suñu territoire la. comme nuñ nee lañ fay duggee nuñ nee lañ fay génnee ñoo ko fa am sa ñu génn ko yoole ko xam ba mu yoolewu génnaat dara du xew. kon daal day saf sàpp kooku na xam ne bëriwul ak booy ma la bëriwul ak booy bi kese. nee na nee nañ amul ay badi quoi fii ay amul waga amul dara Malika fa la lépp nekk. wala déglu ma di génnaat wax wax bu yegg nag dafa ko moom ñu dañuy dugg Malika di génnaat comme noonu. Mhm. voilà moom na bàyyi xelam nag. na bàyyi xelam. waaw fu mu dëkkoon noonu amul boande. amul boande amul dërëm. kon daal fii la fii la fii la. wala dëgg ma la alaaji paate lañ dëkk alaaji paate yaa ngi dëkk alaaji paate fa lañ dëkk noonu la demee nag am na tooro am na ñooro day zambare rek voilà waa ñooro nag ñu ngi alaa belaw nelaw kenn du la ay toor noonu demee nag. mbër sa gaa yaa ngi wax de. waaw déggoo lu ma la wax. ñii man ñii laa am ñii dañoo gëm seen mbër. xanaa déggoo lu ma dama nekk xale bu ndaw am dama am lu ma nekk gëm ko. booy nii su ma toogee benn jour sax dama entraînement dañuy mer. waaw man booy man ñoom laa am ko wax ndongoloo bi dañuy bàyyi dem bu tay neex ba nga fàtte dem. waaw man booy laa am booy booy ñu ñoom laa defandoog lépp waaw te moom lu ma koy wax bëriwul ma ko jàppee ci taax voilà dañ may yónni yàqamti ma ko waa dama nekk xale bu ndaw voilà gëm lu may def. li ma la laajoon sànq ci côté mobilisation bi noo leen koy waajee fii. xanaa déggoolu ma bal yu mag yi la pare nañ ci lépp làmb ji nekkoon suba. waaw gis naa gis naa damaa gis affiche yooyu fii eh, ci TikTok bi may dugg di gis une minute trente secondes moom nee na yow boo taxawee dëgg combat bi di diire trente loolu moom ay wax non non wax la rek ay wax la rek kenn du jàkkaar loolu log-log ko attaqué waaw tegu voilà kenn du jàkkaarloog bal di ko attaqué. lépp lépp lu fay neex maay bëre maay tuus maay daan. lu may wax ma ko gëm. voilà ndax kon boo doon bëggee fekkee ma ngeen a kaw xam naa dama comme comme sa gars yaa ngi fi. kan mooy njëkk a jàpp kan la ñuy teg ak eh, maa ngi bigam ñëpp ah. maa ngi bigam ñëpp maa ngi sant ñëpp ah. lañ dëkk gaan waaw daa yàqamti rek fët day wuyoo turam. fëtti gars yi lañ koy def waaw. fët fët am nga combat de yaa ngi soog na combat. génn bëy nëbul tat dàqul weñ. booy da ngay xaar booy. garabu penc loobe du ko gorre booy. da ngay xaar lu bëri. kii day làmb kii day làmb waaye kaaw ten taw yi da ngeen a yabaate. loo leen doole woo ma de ñun luñ la wax sax lu ñuy teg loo ñu teg noonu ah. la demee reliquat bi moom day xaar ñun dañuy làmb beneen yoon tee bu beneen yoon tee lay seeti mbër del toog sa gox bul dugg si ay place place jàmm dafa saaxitoo ñun amuñu luy suñu gox c'est mu neex la naqari da ngay daanu noonu la demee nag. lañ dëkk bu ñu ragalee rek tooñ booy da ngay xaar ba jamono ne ñun dëggoo luñ la lañ dëkk si digg ñànka tàng bi kalafutu bi wër ñu bu ñu ragalee rek tooñ. nee na fii amul nee fii amul Papa Ndiaye. fii amul fii paate la dëkk la. fii am na tooro am na ñooro. ñoom Malika leen dëkk. xam fii am na tooro am na ñooro. waaw boo ñëwee ba fii ni gone yu nandal la ñun bu ñu ragalee rek tooñ ñun dañuy daw si ni di daw si ni giis daw si ni xakil mi na u kàmb tës. ñun bu ñu ragalee rek tooñ dëmm yaay dëmm yi u kaamu bi billaa wallaay ñun bu ñu ragalee rek tooñ dañ koy yëngal stade bi dañ koy yoole ba mu yoolewu kon daal kon daal gëm naa ne stade ko koro bu arbitre bi bu ñëwee si suñu tribune bi bu ñu xoolee seen tribune moom dañuy gis ne yéen a koy yëngalum sax man lenn laa ko bëgg a wax ne fii alla borrel fii alla borrel borrel mi na jombe tan mi na dan na ni mboroo di xaani rawaani yersi est-ce xam nga la mooy loolu yow loolay gaynde bu xiif tëdd te golo bu lekk suur këla yow bébé Aliou Fat Fat yow golo nga nga ne da ngay lekk gane bu gane bi da lekk romb la njaago bi gane la billaa wala wa taala pusal foofu bul def loolu jugal foofu njaago bi da ngay tere ñun paata lañ dëkk eh. si digg ñànga tànga bi bal bi sël ñu dem tërëm do xaw dëmm yaa nii gars yi nee gis nga mi ngi noonu tey ñu ngi alaaji paate yaa ngi émission bi tey dafa ala doome gars yaa ngi fi gis nga dem mafia bi a ngi toog ñu xool ni préparé seen combat xam naa ne moom le 2 novembre moom stade bi moom xam naa ne moom ku yeex du am place ndax xam naa ne ni ngeen ko nar a ni ngeen ko nar a préparé waa Malika tamit ko préparé noonu no combat bi dina doy waar. xanaa ma moom ma ko bëgg a wane man su ma ko yebul dara lamb ji maa ngi koy muy woote ay may ay yooyu noonu lu ma may ma jël sekku maa ngi moom sax ay may waa gasa gasa la maa ngi ko dégg mu naan ay góor yërëm góor. kon doo ko may. maa ngi ko dégg mu naan góor nit boo ko yërëm day fekk mu yërëm tollu fi ko war a yërëmee saxuma saxuma mu yërëm ma làmb ji xanaa déggoolu ma la za koj za attaque za gañ xanaa déggoolu ma la moom day wax noonu fa mu toog lay toog di wax damaa bëggoon arbitre bu leen sifflé sifflé cinq minutes njëkk yi une minute trente secondes laa ko may ngeen xeex une minute trente secondes laa ko may bu ñëwul bu ñëwul bal yëpp bonde une minute trente bu ñëwul bal yëpp bon la. li ngay wax nii moom fan nga ko teg. xanaa déggoo la ma fu leer laa ko teg. wala nga jàpp ne de yow yaa mën booy bi da ngay ñëw dafa dem parame. xanaa déggoo la ma ñu koy dee sax maa leen mën ñu koy dee pour ay li nii ngay def nii ñooñu maa mën amul laa lu nekk si ñoom lu may daan voilà man xale bu ndaw laa lu may def ma ko gëm voilà. ndax le 2 novembre nekk journée bu doy waar. déggoo lu la la 2 ci ndey tàq. bilaay man moom man moom naru ma woon ñëw stade mais seen combat moo ma nar a yóbbu moo ma nar a indi stade. ndax combat bi man dama ko yàgg bëgg. combat bi dama ko bëgg moo tax man maa sama initiative ñëw seesi ñaa ñëpp dafa leen interview te combat bi combat bu naroon neex a ngi ma bal yu mag yëpp ay génn. képp kuy bal maa ngi lay woo si lamb ji mais nag waxuma la ñuy bal balu quoi booy nekk si lamb ji di bal balu di lappi lappi voilà <laughs> seen air a ngi man maa seen air ñoom ñoom man maa leen di pompé. yaa leen di pompé voilà te ku ma si jàpp dama lay duma dama lay daan. bu ni làmb ji xanaa déggoolu ma la. Ah. wéeru ma ko si gàllaaj wéeru ma ko si mystique làmb ji doole la. voilà ko amul da ngay xaar. te booy bi maa ko gën a liggéey fuuf. da jàpp ne yow yaa ëpp booy maa mun maa ëpp doole. maa gën a fee xanaa déggoolu ma xanaa déggoolu ma xale bu ndaw la lu ma moom damay toose rek ñàkk. naa xooloo nu muy ñàkkee. opinion. saa yi ci période tàngoor la nekk ku toog da ngay ñàkk a ngi ah, xanaa déggoo fii ka fi ñàkk. fii kenn ñàkk fi ku dul man man maay bal bi. Hmm. voilà. xam naa daal moom kon kon daal le deux moom le deux mobilisation bi fi moom pare ngeen fi moom à 100 pour cent. pare nañ si lépp kon bologu bi instant yi toll na yoo ne kon jar na. bologu bi xanaa déggoo Bamba ma waan mu dolli. mu dolli ah, ak yeneen. moom mi ngi nekkee yu ngi dégg. Bamba waa toogal ko waa dinaa la woo ma ne la yokkaatal temps bolok ñun làmb la ñuy def barki Seydina Mouhamed booy booy nii rek mën nañ jeexal bolok waxuma la ñu fekkeewu booy nii rek mën nañ jeexal bolok booy nii. barki Seydina noonu la duggee waaw. ak ak arène nationale ni mu ni mu yéeme. mu ñëwee ah, ak ma war a ñëwee ba bondal bali. Ah. waaw waaw dinañ xam ne bal bi ñëw na. kon daal arène nationale nga ne boo duggee bi moom sa sa dugg bi da ñëw rek. lépp lu fay neex maa koy def. yaa koy neexal sur voilà lépp lu fa neex maa koy def. yow déglu la. ay kan yaa nga nii. ba fat fat booba tey nag maa ngi dégg muy wax rek. ba fat fat booba tey yaa ngi wax bamba bu liis la ku jàpp say juróom-ñaari maam jaay ko maamu jàmbur joo gis donte du sa maam mais di nga xam njëgam bii dugg na fu ne waaw jaar fu ne kon ba fat fat mi war na borom daaru jaaxaluñu te bu boobaa bu ñëwee di nga xam ne lamb am na gan quoi wa wallaahi la deux lamb am na gan bu bees sax laay lu bees sax nañ ñëpp xaar parce que sëñ Bamba Mbacke kii du ragal gaa xolal waaw yow kii bu ragalee war na borom daaru dañ koy rey billaa wallaa taalaay. loolu waaye seen face nga xam moom la war a def mardi. face à face waaw ñoo ngi koy la face à face bu neex. Adam na fa doxal pëlu les bi. doxal waaw. doxal pël bi ah. doxal eh. làmb ji xoolal dëmm eh. yee ñëw. yaa ngi dégg dof yi noobul yi daw lépp booy li woote ay mbayaar yi mbayaar. ñoom lu ñu rek dañ leen siy fekk si. booba tey ñu ngi leen di dégg nii xam nga promoteur bi sax xoolal. taxaw na nii di këlam naan booy ne da ngeen di wiiri ay c'est-à-dire loolu noonu buy am si ñoom lay jógee booy ñoo leen gën a xottee ko fuuf ñoo leen gën a yaaxu aller sans retour bu leen neexee ale sans retour lañ leen di defal déggoo ma xanaa dañuy jóge stade dañ koy raamal ba biir Kër Massar dañuy xoolal duñ jaar sax Kër Massar dañuy wiiri Malika bi la ñuy teggi wala ñoo leen gën a yàqu mardi mardi lañ jóge Malika te heure buñ fa amee soxla dañ koy yëngal eh dëjëw ndeyam tous. ay daw rek. tey nee naa la émission bi tey mi ngi nii mi ngi fa ala daw ba tey tey ñu ngi El Hadj Pat. kenn ko mooy ambiance bi. mooy loolu rek. ñu ñaanal Baba Jaxal la am combat Baba Jaxal 2 le 6 waaw. ñu ngi koy ñaanal am ndam. waaw noonu la demee. léegi ñëpp laay woo. waa léegi kon ma bàyyi la nga woote rek parce que instant yi moom yaakaar naa ne émission bi moom instant yi ñu ngi topp ci ci ci. waaw bëgg naa ko baaxee ñaar si làmb bi. waaw baaxee ko non non maa bëgg boo wootee ba pare booy tëj. nga baaxal ma ko ñaari kàddu rek. noonu la demee dafa. làmb ji nag waaw maa ngi ciy woo ñëpp. maa ngi ciy woo waa see bi. waa see bi làmb ji maa ngi ciy woo waa see bi. waa waa central ay jàmbaar lañ. jàpp nañ ci làmb ji bu baax bu baax a baax a baax gis naa sam bopp waaw sant waa alaaji paate ñun ay doomu alaaji paate lañ waaw si paate bi lañ dëkk waaw di woote mafia CFA bi xam nga daaru misel xam nga san waa ñëpp bàyyi ma kenn du ma fi yaa maa woo ñëpp waaw waa gétt ga xam nga waa ceenaas bi ñëpp waaw maa ngi woo ñëpp bilaay waa cambayam tombayam xam nga ñëpp maa leen di woo si làmb déglu rek déglu làmb ji làmb bale la. làmb mafia bi la. voilà. ji maa ngi si woo ñëpp. bilaay DG maa ngi woo si làmb bi Bourdou. maa ngi woo DG Gora. Gora di lay wax ni. làmb ji sa làmb la waaw loolu jàpp doyul. waaw tamit maa ngi koy sant bu baax. ginnaaw yàlla lii moom la. yàlla lii moom la Meda maa ngi koy sant bu baax. waaw ji moo ko dox ba nii. ma toog mu woo mu ne ma sa làmb dox naa ko na fii génn na fii Mera maa ngay sant bu baax man ak moom démb la. waaw waaw di sant Fallou mi toog Fallou bu lis maa ngi koy sant bu baax ay ñoom do Bamba Zil booy maa ngi koy sant bu baax. billaay gaan day sonn si man billaay walaay taal mobile maa ngi koy sant làmb ji daxaa jël au sérieux mobile maa ngi koy sant bu baax waaw billaay day joxe ay ñoom naabaloo et puis bal bu mag bi bilay déglu rek g maa ngi sant ñëpp dimbo ñëpp waa alaaji paare bi bir momar maa ngi koy bu baax ay ñoom koto waaw koto maa ngi koy bu baax man moom tamit démb la waaw dool na si man lu bëri waaw ay ñoom maala xam nga ñoom ñëpp maa di sant waa alaaji paare moom bàyyi ma kenn billaay làmb ji maa ngi siy woo ñëpp bis dama ma bëgg gars yi génn jàppale ma te mbër mu gars yi doon laam-laame na xanaa déggoo ma mbër mu gars yi doon laam-laame feeñ na mu ngi nii toog waaw ma amee doole boo yëpp maa leen mën si làmb eh, man maa leen gën a yàqu eh, lu ma koy baaxee bu bëriwul boo demee newal ma ko ku yàgg a jaay mag bu laaj sa maam lu muy jar yow déggu ma ku yàgg a jaay mag laaj sa maam lu muy jar làmb ji làmb bari la te làmb ji bi képp kuy bal maa ngi lay woo si làmb ji bàyyi ma kenn waaw bal yu mag yëpp maa leen di woo si làmb ji nañ ñëw ñu bondeel bal yëpp ba esaat bilaay Baay Faal bi maa ngi koy sant bu baax e, e, e, Ibou bu Alaaji maa ngi koy sant bu baax waaw jàpp na si làmb ji maa ngi koy sant bu baax a baax jàmbaar la di moom tamit waaw di sant waa marché bi ay Modou Boulangerie bi xam nga bilaay di ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam si làmbam ji mu jëm. bilaay Baba Jaxal 2 waaw moom tamit dafa am làmb waaw ma koy ñaanal ndam waaw booy nekk si booy bëre yëpp waaw ma maa leen ñaanal ko waaw. bilaay mooy ñaanal ñëpp. so waay maa nga mu naan day woote waa Saloa ba di woo ay nijaayam. lamb ji ñu ngi si woo Jomaay ak Sonko. Jomaay sax bu si xajee na teew. mu ne nga jàppal vol barki Serigne waaw. kon daal la dégg yéen da eh, si lépp moom nante la business bi Malboro lañ koy misee. walaay ak laxasaay balan exigé barki Serigne Bamba bu ñu nga xam ne dawoo dërëm eh naa tëlee tos barki Serigne waaw jaajëf jàmbaar ñu siyaar ñëpp du nuyu ñëpp ah. du nuyu waa Kër Massar waaw du nuyu waa sant yàlla alaay faata ñëpp quoi di siyaar ñëpp comprendre nga kii da di xale comprendre nga dëkk si koñ bi waaye comme surtout mu ndaw dafa metti comme li sànq rek waaw mbër mu ndaw autorité surtout autorité yi fii dëkk tamit dañoo war a gëstu mbëri ndaw yi ñu nga booy nga gis ni ñoo def seen téeméer téeméer seen 200 200 seen 300 ak grand frère day taxaw ku si mel ni jazz maala korka naabuloo damay lim de damay lim de genre grand frère yooyu noonu ñooy jàppale mbër barke maam Seera Fall monsieur le maire nag ñu fi lañ dégg tuuti rek waa monsieur ñu ngi koy woo Moustapha Mbengue ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax te yàlla tax waaw non dañ ko seet sax mais boobu léegi dañoo xam nga rek dañoo amul temps moo tax mais dañuy ñaan di jëm sëñ Fallou mu ñëw jàpp si combat bi xam ne kii doomam la combat am la ma wax yàlla tax ñun nag ñu war a def def nañ ko teg nañ ko ci code entraîné nu muy entraîné comprends nga nice bis ba des ñu ñëw def suñu regroupement tax suñu contingent lekk ba suura ah. dañuy lekk ba suur jël suñuy lëbaay mool di bondeel waaw barke maam Seera Fall waaw di sembare ba estat waaw ñun ñun ñun ma wax leen sax ñun ñun Kër Massar bu ñuy dem estat kenn xamee ñu dem ay jaar di dem jaar ay Malika ñun na nationale lañ xam ñun ay noble lañ barke maam Seera Fall ñun ay noobul lañ ñun ay duñ ay boy yoo xam ne dañoo ñu rek ñoom Malika amuñu fa tuuti forcier waaw kay li saa wax rek lamb lamb jaase la amul xalaat waaw kay amul jaase moom yoo ko toog sa gaalaay waaw noonu la nag di ñaanal nag mbër yàlla defal ko jàmm may ko waaw ndam seddu guy barke maam Seera Fall tànk la booy ba am jom la mu tax yëpp di daw si kawam noonu la demee nag yow ñu ngi lay ñaan xam nga sa télé bi tamit yàlla waaw avancé ko waa tamit yow jàmbaar nga ko waa yow jaayaf grand bi loolu demee làmb ji nag maa ngi siy woowaat ñëpp Moustapha Meng maa ngi koy woo si làmb ji quoi Moustapha Meng maa ngi koy woo si làmb ji mu ngi si ginnaaw fii buñ sëkkatee sax mu déggul waaw maa ngi koy woo si làmb ji mu ñëw mu jàpp si bu baax a baax a baax voilà ñun ñëpp ay doomam lañ waa maa ngi waat DG maa ngi koy waat si làmb DG DG maa ngi koy waat si làmb bu baax yo see Omar maa ngi koy waat si làmb ji DG central waaw jàmbaar la moom tamit waaw di woo ñëpp waaw bilaay politicien maa ngi koy woo xam nga waaw mooy loolu noonu làmb ji la bàyyi ma kenn voilà di santaat ñëpp nag waaw di waaj jàkkaarloo bi nag le 2 novembre waaw le 22 le 22 jàkkaarloo bi ma ngi si waat ñëpp waaw mardi bii la yaakaar naa ko voilà maa ngi si woo ñëpp billaay walaay. waaw làmb ñu nag ñu ngi siy woo ñëpp orienté ko nii làmb ñu ngi siy woo ñëpp waa alaaji paate cat ba santaral xam waa sotora ak jameek booy jameek ñu leen di woo waa daaru misel waa maam joor waa ngunju ñëpp la woo si làmb ji xam ñoom biraan taylor boo yëpp bëggee nañ leen booy laali ngeer yi xam nga di lay woo si làmb ji ñoom paa bi joolaa yooyu ñëpp nañ leen si làmb ji ngeen teew waa gétt yéen ñëpp leen waaw kenn du leen wax. gars yi de daal mi ngi noonu tay bàyyi woon fii Kër ma sax Alaaji Paate ñoo sees yoon nag bébé Liss bu war a deen rek moo bébé Fatfat war a am na nekk le 2 novembre 2024 nekk journée Bamba Milano Milano production waaye grand combat bi mi ngi dox ci diggante kii di Souley Gaynde ak imposé combat spécial bi di dox ci digganteeg Bouba bu yëmbal ak Thiatou Fass ñoo war a bëre combat spécial bi mu nekk ay yu neex yoo xam ne Baba Milano indi bu mag mu war a def tamit fee ci arène nationale nekk face à face boo xam ne face à face bu neex la boobu xale yi ñoom ñëpp dañoo war a ñëw teew ñoo wax seen ay am di jaab ñoom seen waaw mi ngi noonu daal léegi xam naa loolu la leen di tàggoo di leen wax ngeen gën di yi di commenter di partager